Fodam, fodam. Danga daka di ma sonal Ma yow ma fenn fu ma nooye Nga bëgg ma dëkk ci bakkañ Non, non Kër gi yaa fi gaana tuuti Barki dem la nene tuuti No bay mbay dang ma sonal Taw na No no no no, foog ma dee Boo demee dang bàyyi ma dee. non non non foog ma dee. boo demee dang ma wéetal. non non non bàyyi ma dee. naa wàññi tension bi. sonal nga ma. fatt nga ma. yow toog nga sama bopp be. yow de xaw ma foog ma toppee. boo demee yow dina wéet dina tiis. ah toogal nag bu dem. boo demee dang fi manqué. kër gi nag bugguma ko sa néeg bi nag buggatuma sama ceebu yaay ya, action Hmm.